ñu ngi feet seen jeexitalu koor wante ñun ak ñoom ñoo bokk koor gi bu ñu ñu joxee ngalax ñu jox leen tàndarma donc ñuy sant ñëpp surtout jeunesse bi jeunesse bi laa bëggoon a waxal puisque ñoom laa invité woon ndogu li ma jàngal leen suuratu kahf jàngal leen ñaari xasaayidu sëñ Tuuba yi mu bind ci yóbbalu ndaw ñi wax li pape Jean Paul II waxoon ci ñoom waxleen leen itam li Serigne Cheikh Al Maktoum tudde woon l'hymne à la jeunesse te wax leen rek ne ndaw li ko war mooy tabax ndaw li ko war mooy yar ndaw li ko war mooy yërmande jëme ci ay waajuram bañ leen a gëdd bañ leen a sonal di leen toppatoo te teel leen a awu ci coono yu yor kër gi ndaw lu loolu war waruloo toj waruloo taal waruloo yàq surtout loo xam ni jotaguloo participer ca la ko fa def ndax amagoo liggéey yaa ngi wut walla yaa ngi jàng Sëriñ Tuuba bokk na ci li mu wax mooy fonk xam-xam ak jëf ju yàlla gërëm yàlla nag gërëmul ñu defar ba pare nga yàq gërëmul ñu defar ba pare nga taal gërëmul kilifa wax nga weddi wala nga jànni walla nga saaga yooyu yëpp ku miin xasaayid yi dana xam ni yàlla gërëmul sëriñ Serigne Cheikh itam wax ne yàlla ci boppam dafa am jeunesse am bi yàlla moom jeunesse bi yàlla féetewoo parce que yëpp moo leen moom mais bi mu féetewoo mooy jeunesse bi nga xam ni gëm nañu ko te sax nañu ci mbaax bi ñuy juddu ba bi ñuy wuy ji seen boroom du berso au tombo leur préoccupation unique est de produire le maximum de bienfaits pour leur communauté pour leur pays pour leur famille pour leur continent moo tax mu ne jeunes yooyu nga xam ni yàlla jiital na ci ñoom yar jiital na ci ñoom xam-xam ak bëgg jëf ju suñu boroom gërëm jeunes yooyu lañu war a teg ci kanam ndax ñooñu ñoo mën a tabax Sénégal loolu la wax ne bu hymne à la jeunesse doon am ci aaya booba lañ ko war a tibbe ma nga ca sóoratu Kahf allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin kama salayta ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama barakta ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim fil alamin innaka hamidun majid subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin munoon naa ci teg nag notre père mais notre père ba ma koy jàng suñu kër sam papa ma daan wax subhaanallah sa notre père ji mais ci alxuraan yàlla mu ngi naan invoquez Allah comme vous invoquez vos pères et plus ardemment encore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 Elle était aussi la lionne de Wade pendant tout le sortie. Et lui, c'est Maïti Gadiaga, l'ami personnel de Serine Diop, mais qui a toujours choisi de m'accompagner. C'est le père de Badara Gadiaga, là, uh-huh. qui me taquinait euh, à la télévision. Uh-huh. Quand on lui a demandé, ce que Idi avait dit à Maki à